le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen kontaanee ko rafetlu bu baax a baax seen ànd naag suñuy programme xam ngeen ni niki tey la culture sénégalaise dañoo xëy mbetteel ak it wéetaay ci génn ak àdduna ki nga xamee ni mooy suñu papa Bass Diakhaté mu nekkoon artiste euh, nekkoon comédien boo xam ni dootuñu ko présenté ci réew mi 40 ans mu yàgg bégal Sénégalais yi ñu am jotaay ak koo xam ne yàgg na liggéey ak moom vraiment ci ñu gën a bari la bokk bari waa na tamit daanaka année bu nekk dina am produit boo xam ne liggéey nañu ko ñoom ñaar muy àdduna ki nga xamee ni mooy Bass Diakhaté di la war a rédaction seen ba seet si la euh, pour commencer dañu lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi ak maa ngi leen koy delloo. te di leen dalal. jërëjëf. te gannaaw ba ñu sant yàlla nag julli ci Seydina Muhammad mhm. dañu naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mhm. waaye it kullu nafsin saayixatil mawt dañu ñaan yàlla rek buy ñëw yàlla nañu fekk ci lu rafet. amiin yaa waaye tey jii le monde artistique est en deuil ndax dañ ñàkk ku mag dañ ñàkk ku riche dañ ñàkk ko en valeur waaye nag ñu ngi ñaan yàlla tuubaa gee muy jëm yal na ko sëñ Touba teeru moo ñam fa fekk ak ña ko fa fekk Bas Jaxate sama ànd ak moom hmm. du ci ndogu li ndax mi ngi doore ci scène dramatique boobu duggaguma jamonoy tey. d'accord scène jooj lañ ko doon oowee man moom Youssou Ndour euh, Jibi mbay moom moo nekkoon directeur artistique bi. moom mu tudd ci jooj mu nekk nag hmm. nit ku généreux. nit koo xam ne du toog fenn ba kenn am benn stress fu mu toog ñëpp dañuy bégg na mu daan tooge ci jataay mm-hmm. ñëpp di bég ba ba muy jóg mm-hmm. bu eggee ci biir bàmmeelam yàlla na ko mbégte mu fekk amiin yaa rabbi bas jaxate mm-hmm. ñu jóge ci Sine Dramatique jamono di dem jamono di dem jamono di dem ba ñu ñëw bokkaat jamonoy tey yàgg ci lool yàgg lool ci jamonoy tey def naa ak moom des animations de quartier ci ay publicité pas mal de produits de de la place. jóge ca nag. Mm-hmm. ñu ñëw Walfadjri di fa def ndogu li. d'accord très xam naa loolu dinaa si ñëw dafa nekk par parcours bu am solo boo xam ne yéen ñaar aussi gis nañu complicité d'artistique bi nga xamee ne à chaque fois yéen a ngi koy euh, wane mais mën nga dikk ñun ci fàttali ban année nga njëkk a commencé liggéey ak ki nga xamee ni mooy Bass Diakhaté année bi précisément. man daal euh, xam naa ni. Mm-hmm. Bass Diakhaté. daal ak euh, Sine dramatique mm. vraiment je m'en souviens pas du de l'année ndax dafa xaw a yàgg ndax xam nga xel mi mm. neexatul mm. mais xam naa ni yàgg na ndax moo jiitu jamonoy tey 74 laa commencé jamonoy tey donc ça doit être dans 72 71 ci la ñu nekk woon ma koy jaale nag koo xam ni ñoom ñaar duñu ñaar kenn lañu muy Tony Diop mm-hmm. waaw monde artistique ñàkk na mais moo mook Tony ils étaient toujours ensemble ba man bi ma ko mujjee gis hmm. maa ko romb booru kër Tony foofu ñu toog seen grand place hmm. fekk ma doon dem parcelle ma romb leen nuyu leen nii ci taxi dem boobu laa ko mujjee gis d'accord Mhm. Mama Rama dig ma baal aussi du ñàkk nga wax ma xam nga dafa nekk personnage Bass Diakhaté daanaka 40 ans euh, chaque jour aussi dafay gën vraiment di neex sénégalais yi ci personnage yi nga xam ne mu ngi ko doon def ci comédie mën nga dikk ñun si personnage bi mu doon porté en dehors de li nga xam ne mooy théâtre aussi sénégalais yi bëggoon ko ci. waaw ni muy comporté woo ci théâtre bi. Mhm. yar gi. Mhm. fulaal li muy def di ko teg ci yoon ba pare it daawul def benn tricherie. noonu it lay def ci bu dul théâtre bi. <laughs> noonu lay defee ci bu dul théâtre bi. d'accord hmm. alors nga yàgg liggéey ak moom mais complicité d'artistique ba nga xamee ni lu nekk joué ngeen ko ensemble aussi ñëpp gis nañu ne vraiment am na complicité bu baax bu amoon seen diggante loolu lan moo ko waraloon sa diggante ak Bass. da di ñun ñi nga xam ni hmm. les anciens comme ci doon ku ne fu mu xupp moroomam rek da ko daal di wuyu loolu yàlla may nañu ko. Hmm. ba tax na muy ci ñu daje ci cinéma beeg daje ci ndoguleeg daje ci scène bi hmm. fu ñu ci daje rek dina ma jox li ma bëgg ma jox ko li mu bëgg d'accord hmm. loolu moo doon complicité bi hmm. d'accord alors lan moo la gën a marqué lan moo la gën a marqué vraiment ci li nga xamee ne vraiment jotoon nga ko liggéey ak ki nga xamee ni mooy Bass Diakhaté maa ngi koy wax sànq bari na surtout dernière année yi nga xamee ni moom la des ci suuf loo xam ni yéen a ko liggéey ensemble aussi lan nga ñu mën a wax ci ci Bass Diakhaté ci personnage yi nga xamee ne daan ngeen ko bokk waaw waa personnage yi ñu ko doon jox ak li ñu mujj joué ñoo ngi ko mujjee joué ci ndogu li laa mujjee joué mhm. ak moom personnage yam fa doon incarné aussi daf ko doon jox gëddam ak axam ba mu mat bi loolu paase yit vraiment mhm. daal euh, mënuñu daal lu ne ku baax la ku humble la mhm. ku généreux mhm. baax nag dem na waaye yàlla ñu gën a soxla ñu baax ñi tey jii moom euh, xol yëpp àndandoo na tooy xol yëpp tooyandoo ndax euh, man yàllaa dogalul sama gisewaat ak moom parce que dama demoon Casamance bi ma ñëwee samedi ma daje ak Marème Niang bi ñu dajee mu ne ma bas dafa feebar ba hospitalisé mook Maodo ma ne ko ah comme mardi férié la dañuy dem seeti ko ni dama dégg ni yaram bi dafa sutante ñu jaar fa bu ñu jógee dem seeti Maodo. entre temps mu am contre temps. ma ne ko kon nañ xaar bàyyi ba ci weekend bi mais xam naa ni yàlla tuddul woon pour ñu gisaat ko waaye ñenn ñi ci des yàlla nañ leen gis gisaat leen gisaat leen. Mm-hmm. yàlla na àpp sore bas jaxate fa mu jëm mm-hmm. yàlla na ko gënal fi mu jógee may sant nag jabaram yi ndax ñu baax lañu mm-hmm. ñu baax lañu ñun ay nit lañu ñoo xam ni vraiment képp ku di artiste góor ak jigéen buñ la gisee jox la sa gëdd ba mu mat. njaboot gi mu fi bàyyi it yàlla na ci yàlla teg loxoom. amiin yaa rabbi ci daraja Seydina Mouhamed. amiin yaa rabbi alors bëgg naa aussi maman nga fàttali ñu tuuti mu nekkoon universel quand même nga ay personnage am daanaka bas euh, rôle bu ne rek boo ko joxoon rawatina comédie aussi yàlla daf ko ci mayoon ba nga xamee ne yomboon na lool euh, pour mu bégal sénégalais yi ndax personnage lu jëm ci comédie aussi mën nga ñu wax lu ko mayoon facilitation bi nga xamee ni bu joué rek sénégalais yëpp ñu ci moom. non xam nga loolu en général hmm. man ni ma koy waxee rek mooy suñu baay ba muy Edil El Hadj sekk mi tax kuy théâtre di théâtre hmm. da daan wax naan loo doonul sëriñ loo doonul taalubeem doo nekk sëriñam dafa am ay nit ñoo xam ni yàlla da leen def da leen bind ah, da kii ak comédie fu ñu toog ñu ngi comédie mais terewul leen am fu la fayda de hmm. moo nekkoon ci bas mu daan incarné nag ay rôle yu am solo. absolument surtout si comédie aussi. Mm. comédie bi daan na incarné ay rôle yu am solo mais role yam cay incarné yëpp yow mi koy déglu. Mm. comédie bi muy def dalay lay yee di la yaraale. su fekkee dañuy théâtre tamit. Mm. ak rôle boo ko jox dina ca def la ca war. d'accord. dana ca def la ca war. ku ko engagé. liggéeyal na la ba sa xol sedd. Mm-hmm. fa mu jëm te yàlla na fa xolam sedd. amiin yaa rabbi alors lan nga ñu mën a wax aussi ci modeste bi nga xamee ni ñun ñi nga xamee ni jot nañu am ak moom émission ci ci lu dara mën nañ ko seede ci moom daanaka li mu doon joué da ngay foog ni sax noonu la mel bu génnee toujours dafa oyof foo ko gis aussi vraiment mu ngi kaf mu ngi ree mais surtout euh, di passé ay message yoo xam ne dafay dimbali ndaw loolu aussi bëgg naa nga wax ñu lu ko mayoon loolu. waaw moom dafa boole woon ñaar. mooy boo ne génération bu njëkk artistes yi. Hmm. li dañ dañ boole ñaar ndax dañu boole communication communicateur artistique. Hmm. boole it ak art bi. fu ñu toog dinañ fa waxtaan ba yedde fa yeete fa yare fa. Hmm. looloo nekkoon ci moom fu daan demit moom la fay yóbbu. alors ndax complicité familiale bi nga xamee ni aussi amoon nga ko ci diggante ki nga xamee ni mooy Bass Diakhaté yow Bass Diakhaté ak tournée ak tan bombeeg yu demee noonu mën nañu wax ni lu la marqué la ci ki nga xamee mooy Bass Diakhaté d'autant plus que lu ci bare bari ci ndog yi nga xamee ni yéen a ngi koy def Walf yéen ñaar yéen a ko doon def mën nga ni yéen a waaw ndax euh, am na générosité bu toll nii des fois da ngay def bu xoolee convenir wu ko mm-hmm. ah non nag e eh, xoolal da ngay def nii def nii te loolu mooy nit moo loolu mooy jukkooy artiste mm. artiste dafay yaatu artiste dafay général ndax su fekkente ni sa moroom mi ngi def naka sa dul noonu mm. nga woo ko mais nag kañ koy waxit yàlla na noppi dégg ndax tey ji ju su may joué te li may joué defewu ma ko na ma ko war a defee mm. ah nga daan ne ma déet mama déet nangam ak nangam ma jël ko def ko sa wax mooy doon dëgg te bu ma ko defee dinaa ci am ndam d'accord alors ñu xëy mu nekk metteel bi ñu ne Bass Diakhaté génne na àdduna ñu jot a gëstu ni daanaka xaw na feebar lu jege ci ñaari weer ak yu demee noonu ndax feebaram ba muy door a commencé ak ba ni mu àdduna jotoon nga ko yëg. non xam nga ñun nag dañuy feebar di ko doxale mm. du ñu toog ndax charge yi suñ bopp dafa bari. Mm. te fan lañ ko yaakaare ci aar bi ñuy liggéey lañ ko ne ba tax na. Mm. bu ñu feebaree mënuñoo tëdd. daf ci am ñoo xam ne tey jii bu ñu feebaroon bay nekk ci sukuraat nit ñi duñ leen jàppale duñ leen dimbali ndax dañ naan artistes yi li ñu am du jeex euh, du xaaj te fekk lekk ñu naanuñu ba tax na suba gu ñu xëyee dañuy daw ngir suñu njaboot. d'accord moo taxoon feebaram mënoo ko xam foog nag ñun artiste. Hmm. foog ñu feebar te bu ñu feebaree di lekk sax dañ naan feebaruñu. foog nga feebar ba buñ lay sol ndox muy génn. mbaa ñu lay sol lekk du mën a jàll xam ni feebar nga. mais yal nañu yàlla jàppale. ba buñ ca egg. ndax it y a de bonne volonté. Mhm. Mhm. yoo xam ne du ñu dara ay nit simple lañu mais ñaan yi ak yéene yi. Mhm. ak léeg-léeg ñu am dara ne am ah yow de nangam nangam. sant yàlla rek daal ñu ngi sant yàlla nag bu baax ñu ngi sant yàlla. di julli Seyna Mohamed. Hmm. alors Mama Rama Thiam mu bokk ci li nga xam ni jot nañ ko xam aussi daanaka fële mu nekk hôpital principal ay fan a ngi nga xam ni foofu la foofu la nekkoon euh, moom bas yàgg na fa ndax mën nga dikk ñun un information yoo xam ni jot nga ko am ci li nga xamee ni mooy feebar bi nga xamee ni moo ko fi jëlee tey wala. vraiment. Hmm. aw ma ci benn écho. Hmm. lu dul barki démb bi ma samdi bi ma marem ñaanee mm. bas dafa hospitalisé mu ngi abas ndaw. d'accord kon samedi nga yëg ni mu ngi hospitalisé. waaw samedi laa ko yëg. d'accord mais aw ma ci leneen. Mm-hmm. du ci malaa dem du ci dara yëgu ma ci leneen. samdi daal laa ko yëg. d'accord gannaaw samedi ñu buggoon fa dem yàlla dogalu ko. Mm-hmm. bi ma yeewoo tey dégg ni yàlla def na li gën. yàlla na nekk noflaayam. amiin mais awma ci leneen. d'accord ndax mën nga dikk ak ñun ci fàttali ci loo xam ne vraiment produit la boo xam ne liggéey nga ko ak moom moo amoon ci yéene trop. ñu ne ñu ngi mujj joué. Mhm. ci ndogu li. la mujj joué ak moom. Mhm. Euh, bu daaw jéeg. def naa boobu la. Mhm. ci la ak moom. te mu nekk ni ku jox aar bi àqam. ku jox aar bi àqam. njaboot gi mu fi bàyyi nag. yal nañ ci yàlla tegal loxoom. amiin yaa rabbi. Hmm. te ñun ñi fi desit hmm. yal na àpp sore. amiin yaa rabbi yéen it yal na leen yàlla defal jàmm. amiin amiin yaa rabbi. Hmm. amiin yaa rabbi alors bëgg naa aussi jeexal rek nga defal ñu benn fàttali parce que dafa bari loolu lu ñu lay gis ngay liggéey mi lu ci ba gën a bari ak ki nga xam ne mooy Tony la ak Bass Diakhaté loolu aussi bëgg naa nga wax ma choix la wala dafa benn complicité boo xam ni da nga koy yëg sa diggante ak ki nga xam ne mooy Bass Diakhaté moo tax xëy na fu ñu la gisee rek lu ci baree bari aussi gis la ci wetam ni ma la ko waxi sànq rek hmm. les anciens toujours hmm. complicité dafay nekk seen diggante boo toogee ñu expliquer la rôle rek daal di ngay xam ni hmm. bas bu ma waxee lii lii laa koy tontu te liñ ma ne jógal ne ko salaamaaleykum maa ko mën a xorom ba salaamaaleykum ji neex moom it de euh, moom tamit de même comme dafa yomboon nga jouer ak moom dafa yomboon ma jouer ak moom comme ni mu yombee may jouer ak sama njaboot gi. d'accord. xale yi ndogu li. Mm-hmm. noonu la yombee muy jouer ñoom. d'accord. Mm-hmm. ndax euh, bu ngeen xoolee li ñuy def toujours. Mm-hmm. amul ay kii nii bu ñu expliquer ba pare bu ñu xasee ba nekk ci plateau bi. nii lay def rek tak tak tak ndax on se comprend. on se alors lan nga ñuy wax ci ñu bari ci askan wi yi nga xamee ni bu ñu nee benn artiste bu mag génn na àdduna rek li ñuy njëkk a xalaat mooy dina ne dafa am benn manque d'assistance boo xam ne moo waral mu jigee fii ndax loolu mën nga ci dalal xelu sénégalais yi nga xamee ne tey ñu bari bu ñu nee Bass Diakhaté xëy na génn na àdduna daf feebaroon ñu bari aussi li ñuy faral di wax rek xëy na feebaroon na feebar boo xam ni jaadu woon nañu assister ko te loolu amul ah, man daal li ma mën a wax ci sama wàllu bopp mooy hmm. xam naa ne man bu ma feebaree hmm. kër sœur laay fajoo mbaa gendarmerie hmm. waa ma dem polyclinique xam naa daal fa laay kenn faju ma nag waxtaan bu ne wax dëgg jàlla mm-hmm. mm-hmm. yëkkati micro mm-hmm. ah, di ñaan yàlla nag yëkkati micro bi bu ñu feebaree bu ñu feebaree yal nañu yàlla may rek dërëm bu ñu mën di fajoo su ma fa demul it centre Colobane bii laay fajoo waaye a ah, feebar ñu ah yàlla buñ ma jàppale daal léegi yàlla buñ ma jàppale léegi ñi koy xalaat ci bas jàpp ne dañ ko waroon a jàppale feebar bi dañ ko waroon a yëg pour jàppale ko loolu du ñàkk nga si mën a wax. non xam nga artistes yi. Hmm. surtout nous les bu ñu waxantee dëgg to bañu naan war ngeen koo dimbali sama xalaat bu gàtt. Hmm. ndax su fekkoon da ngay jot ñaar dërëm sax wala ñetti dërëm mën di ci def dara waaye nag man de ñaanaluma ko benn artiste. ñuy xaar ba nga feebar ba sonn ñu door laa dimbali mbaa xaar ba nga dee ñu door ko ñëw di la ko defal bëgguma ko ñaanuma ko bëggaluma ko benn artist mooy bu mag ba nag ak bu ndaw bi bu màgget ba ak bu bees bi ñëpp laa ci bokk wax yàlla bu ñu ko am ndimbal loo xam ne daal dañu naan mi ngay sukuraat wala deene ba pare ñu doog a ñëw ñaanuma ko ñaanuma ko yàlla sama bopp ñaanaluma ko yàlla benn artiste ndax ñu ñu war a dimbali xam nañ ñu war nañ ñoo dimbali. ndax tey jii su ma defoon lu ma warul a def ils vont pas chercher midi à 14h. Hmm. te ku ci ne xam nga ndax dañuy wax. da ngeen ñuy interviewé bés bu ne. Hmm. naan waa nangam lii ñu di leen ca répondre waaye yaa moom kër gi nga ne déedéet hmm. dama luye damay nangam ñee naan am naa terrain aw ma lu ma ko defaree mais loolu soo ko déggee nit ki wax ko. bul ko jox xaalis jox ko matériel ndimbal ci bi boroom di dund. man de lu ma waay defalul de mon vivant. Mm. su ma dee bu ma ko defal ndax do ndax gisuma ko. Mm. lu ma waay di defal rek nag ma ko defal de mon vivant. Mm. muy man nag di beneen artiste bu mu ci mënti doon. dañuy ñaan muy bonne volonté yi. di autorité yi ku ci am loo xam ne danga koy defal artiste bala neex wala ngay def rek ngir yàlla di defal artiste yi def ko ba mu feebarulee def ko ba mu deewul. Hmm. ñu bëri di faral di wax mi artiste professionnel yi daanaka ñoom la ñu gën a desal ginnaaw ci li nga xam ne mooy milieu cinématographique ñu ci bari si ñoom xëy na li ñu war a am ci koom-koom wala li leen état bi di war di jàppale jamono ba ñuy dund aussi dafay manqué trop bu dul sax xëy na feebar ñu faj la yooyu waaye xëy na couvrir bi waroon a am ci seen vie d'une manière a manqué. maanaam xam nga maa ngi gërëm Marème ñaa ak ñi mel ni moom. Mm. bu amee programme am. Mm-hmm. bu ma ca gisee daf may woo ma dugg ca ñu jox ma la ma ca moom. Mm. di ja awa di kasaalay eh, kazaalika waaw wal fajiri nag moom. Mm. mention spéciale. mais mënu maa wax keneen. keneen ku ñëwit dama lay wax di. mais xam nga bëgg lu neex nit ki ba nga waxal ko lu am du yoon. ñun daal ñu ngi ci daal euh, foraatu bi daal. Mm-hmm. anciens yi moom vraiment mm-hmm. vraiment vraiment mm-hmm. vraiment ah yàlla nag ngee ñu jàppale. d'accord yàlla ngi leen di jàppale mais société bi wala entre guillemets état bi wala ñëw leen war a mën a jàppale jàppale gi moom jàpp nga ni des na comme ñu bari ci askan wi aussi ni ñu koy faral di waxee. ah man day gisaguma man gisaguma. xañ na nag am nañu gis waaye man caam gisaguma. te it yàlla naa bokk ci ñuy gis. Mm. ñi gisagul it yàlla nu gis. Mm. de notre vivant. Mm. kon li ñu bari ci askan wi li ñuy li ñuy faral di jooy du ñàkk aussi maman nga am ci xalaat ñu bari ci artist yi dañuy faral di wax ni boo xasee ba nekk mag nekk artiste ak loo mënti liggéey tamit daanaka boo yërwul sa bopp amul benn garantie boo xam ni mën nga ko am ci sa ci sa ci sa dund ndax loolu da nga koy dëggal. ah man de maa nga ca loola. ndax lu yaas bii may fay damay dajale ba fay ko. yaa fayal sa bopp lu damay dajale ba fay ko. te yaa ngi ak njaboot. wala yenn saa yi njaboot gi foraatu jox ma. Mm. ma dajale joxe. te jamono neexatul. Mm. la ñuy yor doyatu leen ba ñu mën laa yore yenn saa yi la ñuy ñëw jàppale la. Mm. comme ni ma ko waxee toujours nag. ñaanuma kenn xaalis. ku may may may ma matériel am naa terrain ma yëkkati ko. ñaanuma xaalis de. matériel ndax ko jox xaalis fekk ko mu am arrière location. Hmm. nu koy def du fay location. ñaanuma kenn xaalis matériel laa ñaan. Hmm. te train baa ngi fii rek Kër Mbay Fall. Hmm. loolu dong laa soxla. ba ilaa état ni ñu jàppee def euh, cité basketteuse nangam nangam. pourquoi pas nous les anciens. absolument surtout ci loolu sax ci bëggoon a ñëw quoi manque de considération boobu. pourquoi pas nous les anciens. Mm. mérité nañ ko nag. mérité nañ ko ndax tey ku fi def rek El Hadj Abdoulaye Seck a tax ka théâtre na suuf ayof ci koom gannaaw loolu ñun ñi mu jàngal ba xale yi jàng ci ñun. ma retourner un peu en arrière di gërëmaat le feu du tsar. Mm. il était le directeur artistique euh, de de la troupe juddu tey de Pikine hmm. kooku moo amoon fi moo doon marié fii ba boole ma ak El Hadj Ablaye Seck El Hadj Ablaye Seck dugal ma ba le monde entier xam kuy Rama hmm. lu ma am tey jii ci ñoom ñaar ñooñu la jóge ak sama frère Momar Thiam hmm. moom ma dugal dans le cinéma Mama ñu bari di wax ni dafa mel ni anciens yi wala artistes comédiens yi d'une manière générale dañ xaw a nekk victime parce que da ngay dem ba benn instant da ngay gis ni daanaka liñ leen di soxlawee rek mooy ambiance ànd ak camion yi di def ay publicité ak yu demee noonu ndax gis nga ni vraiment ku mel ni Bass Diakhaté ak li mu jot a liggéey ku mel ni Mama Rama tey warul woon dépasser niveau boobu tey ak li nga jot a liggéey ci li nga xam wax rek naan euh, quand on n'a pas ce que l'on veut on a. Mm. ndax boo xamul mbaa li nga yor yéene woo ma ci mm-hmm. te gis nga li ma liggéey lépp su ma gisee lu ma war a liggéey mooy camion beeg wër ci quartier yeeg dem dans les régions du ma ko bàyyi danaa ko nangu ñëw faj ci samay soxla defal ci sama njaboot loolu ñu ci moo ñu ci mm-hmm. ba fii ñu toll kuñ ci ñu dem mm-hmm. d'accord ndax ñaar dërëm yaa ngi cay for dañ ci danañ ci faj suñ soxla. d'accord alors maman bala may jeexal aussi dinaa soxla nga wax ma benn anecdote boo xam ne vraiment marqué na la ci vie ki nga xam ne ni mooy Bas Jaxate te ngeen dund nooroon ko yéen ñaar. non Bas moom. Mhm. xanaa ay anecdote ndaxte tubarkalla macha allah daal heure boo toogeek moom ba dem lu mu yàgg yàgg chaque fois yaa ngi. yokku yaa ngi yokku mm-hmm. chaque fois am na lu bees lu muy def ci yow mm-hmm. fa mu jëm yàlla na fa yokk amiin yaa rabbi yàlla na fa yokk ci mm-hmm. darajey Seydina Muhammad amiin amiin yaa rabbi ak Sëñ Tuubaa mi mu yaakaar yaa rabbi ah, li nga jot a tourné ak moom ban séquence nga xam ne vraiment marqué na la ba bi la waxee ni la génn na àdduna sa xel ci séquence boobu la demoon mu nekk loo xam ne vraiment xëy na dafa am lu bari lu mu la jàngal wala dafa am lu mu lay fàttali ci diggante ak moom. yi ma jot a joué moom nag bari na. Mm. li moom. Mm. bari na ba tax na yëpp dafay am lu may wax heure bu ma joué moom rek même bu fekkee ne figuration la ñu def sax bu ma paree loolu daf may marqué te it man la ma koy joué moom dana ko marke complicité boobu am na suñu diggante d'accord ñaan yàlla na ko yàlla defal jàmm amiin yaa rabbi du ñàkk aussi njaboot gi mu fi bàyyi ñëpp xam nañu ni mën nañu wax ni jëloon na retraite aussi te culture rek la yaakaaroon xëy na pour yor këram du ñàkk am na message boo xam ne bëgg nga ko jàllale ngir autorité yi mais aussi bénévole yi nga xamee ni ñu ngi fi ñu gën a taxawu ci ñi nga xamee ni mooy njaboot gi nga xamee ni moom la fi bas bàyyi ah fi mu nekk tey lii am ñëpp dégg nañ ko hmm. dégg naa nag ñu ne ministre de la culture dem na demoon na seeti ko duñ feebaree junj rek doy na xel. Hmm. tubarkalla macha allah demoon na seeti ko doomam euh, moom ci boppam gaañu na bàyyi na fi ak njaboot. Ah, ñu ñaan autorités yi rek ñu jàppale soxnaam ak njaboot gi. Hmm. te jàppale it ñi fi des te téyewuñ ci dara. d'accord ñu hmm. jàppale ñi fi des tamit te téyewuñ ci dara suñu feebaree. faj ga yomb. ndax léeg-léeg dañ lay jox sax plan ngay dem. ñu naan la day nangu bii ak du nangu bii ka dem ba wuti président mm-hmm. kooku yorul lu muy defe bii ak bi waaye dañ di léeg nga dem ñaa bii de doo ko kii bii da ngay fay te buñ la laajee yenn somme yi da ngay ñëw toogaat si feebar rek ba bam lay rey mm-hmm. ah d'accord maman ñu bari di interpeller aussi yenn kuréel yi nga xam ni moom lañ fi samp ñu war a dox ci diggante état bi ak ñi nga xam ni ñooy ñooy artistes yi d'une manière générale ndax kuréel yooyu aussi jàppoo ni am na lu ñu leen war a gën a motiver ci seen taxawaay ñu gën ko ñu gën leen a dooleel. kuréel la lan muy arco yeeg kuréel yi nga xam ne xëy na ñu bari ci artistes yi dañu ñoom ñoo fi nekk pour artistes yi wala pour comédiens yi. ah. existence kuréel yooyu gisoo ci sa bopp entre guillemets wala gis nga ni taxawaay bi des na. non xam nga nag man dama gis ci arco yi. Hmm. ba tax na la vraiment mënuma la ci wax nangam. d'accord mais nag lenn laay dee faral di dajeek ñoom ku mel ni Ibrahima Mbaye soppe mm-hmm. festival bi muy def toujours dama fay dajeeg waa arko yi. mais nag ay xale yu yaru lañu. Mm-hmm. xale yu jox mag cër lañu. d'accord mais politique pour lu gën a dooleel artistes yi gis nga ni war nañ ci gën a mën a yokk seen taxawaay rek xanaa. Hmm? ma ne politique bu war a mën a gën a dooleel artistes yi taxawu taxawu leen gis nga ni ñoom war nañ ci war nañ ci gën a taxawu. waaw ñi nekk ci boppu arko yi. Hmm. nanu wax ak uh, nguur gi rek ñoo ñu gën ñoo jàppale. d'accord te bu ñuy jàppale. Hmm. bu ñu bàyyi mag ñi gannaaw ndax keroog journée mondiale du théâtre mag ñëpp lañu dajale. bi ñu jógee ministère de la culture. dem Sorano joué ba pare. ba ñu joué ba pare. jóge fa doxe soraanu ba buntu pale màgget mag ñi jiitu. Hmm. ñuy wax seen doléance mais nag loolu bi mu amee ba tey déggaatuma ci dara. Hmm. di gërëm sën Diouf ndax keroog taxaw na taxawaay bu rafet lu mu wax. Hmm. danaan waxuma kenn mag ñii laa bëgg ngeen wutal leen kër mag ñii laa bëgg ngeen toppatoo leen. moom sën Diouf muy ku ñàkk ki ñaan. ndax euh, nit ki bu defee lu baax danga koy wax. moom seen Diouf moo fa taxawoon di wax loolu. Mhm. il y les anciens. d'accord il y avait aussi les nouveaux. Mhm. d'accord may gërëm nag sama frère. Mhm. sama xarit. Lamine Ndiaye. yaramam bi sutante dafa fekkoon ma tukki. waaye damay ñaan yàlla yal na ko yàlla yëkkati te bañ tëral kenn. di gërëm jabaram. ci dara ji Seydina Muhammad alors du ñàkk dernier hommage boo xam ne moom ngay jëmale ci njabootu ki nga xam ne mooy Bass Diakhaté ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay am di jàmmam ku mel ni tooneeg yu demee noonu nga tëj nga jeexalee ko. waaw li may euh, wax njaboot gi mooy. Mhm. papa dem na taxul ñàkk papa. Mhm. yaay dem na. Mhm. taxul ñàkk yaay. Bass dem na. waaye gis nañu xarit Bass yi ndax Bass ay xaritam dañuy dem këram. d'accord xam nañ leen. mag du fekki xale xale mooy fekki mag bas dem na bu mhm. ñu toog seen na nañu dem di dal ci seen i seeni seen i bàjjen ak seen i tànt d'accord mhm. d' accord alors maman Rama Thiam ci sama tour rédaction Senbuzz di la jaajëfal di la masawaat encore une fois bu baax a baax ci sa wëllëre bi nga xamee ne jóge na fi muy suñu papa Bass Diakhaté ma di leen ko delloo jërëjëf ndax lii ngeen def tamit mhm. dafa rëy jërëjëf nit ki génn àddina ngeen yëg ko mu métti leen ngeen gis ña nga xam ne moog ñoom la woon mm. ngeen dem di leen marsawu yéen tamit seen bës amuñu seen pay yàlla na ngeen egg ni yoon te fu ngeen bëgg a egg yàlla na ngeen fa egg te yàlla bu ngeen gis dara lu leen jaaxal yàlla bu ngeen gis dara leen jaaxal ki di Ibrahima bi tey tamit euh, Modou bi tey mm. mi nga xam ne moom moo yor ndogu li ak kërtoon yi dañ koy gërëm tamit di ko sant mm. mais nag sama gune yooyu xale yoo xam ne heure bu ma toogeek ñoom damay dund dans un autre monde dañuy foog man dañuy reek man dañuy bëggal yàlla na ma leen yàlla aaral may leen ñu eggale seen yoon te yéen it yàlla bu ngeen gis lu leen jaaxal ah ñuy delluwaat rek di wax rek tàllalaat loxo hmm. ndax kuy yuux ku sa gémmiñ di tàkk xale sottil ndox rek ngay wax hmm. kon autorité yi nga xam ne ñoom la te ñoom tey jii bu leen doon neex hmm. ñu ne mag ñi kaay leen na ko sën eh, sën seen waxe woon mën na ñoo may fu ñu dëkk. sonn nañ ci luyaas. jërëjëf jërëjëf je pense que message bi jàll na ku mel ni Mama Rama Thiam jaaduwul tey mu toog di yëkkati kàddoom ngir jàpp ni dafa war a am kër je pense que aussi ñu bari ci benn volet dinañ ci taxaw maman ñu ngi lay masawaat di la jaajëfal bu baax seen bés di leen jaajëfale ci àndin bi.